asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 18 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nag moom tey dafa xëy demati géejawaay andil ñu ki nga xam ne ni moom moo di Lac de Guiers numéro 2 wan ñu ko ci xatam mu njëkk mu nekk ca aw photo woo xam ne ni wu fës a fës mu ànd ak Lac de numéro 1 bi nag la mu jàpp daal nee na kii nga xam ne moo di Lac 2 moom VIP ya nga xam ne ñoom la bokkal géew bi ñoom ku ci ne daal maanaam servi nañ la maanaam ku ci ne daal am na nar woo xam ne teggi nga ko waaye moom nag moom gars yi dañ koy wërwërloo maanaam daal dañu koo sappe bokkul daal ca la nga xam ne mooy programme ya wala boog gars yi joxuñu ko ab combat yëglikaay ba ñëw na ci ak la ko boole woon sax ak booy ñang moo tax daal Lac de Guiers numéro 2 yëglikaay bi jàpp na ne ba tey bokkul ci li nga xam ne ni moom mooy plan wu promoteur yi sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu boobu gëstu ci ki nga xam ne mooy le penseur di waalo di Lac de Guiers numéro 2 keneen koo xam ne Lac de Guiers 2 bëri na ak moom ba daan ko mu yéex yu jub Yékini yëglikaay bay xëy tey sampoob laajam ka ko def di Boubacar Ñang la muy laaj nag mooy est-ce que écurie Ndakaaru dinañ am koo xam ne daal maanaam dina mel ni Yaxya Jóob maanaam daal relevé la boog mu ñëw jël relève ba jaaroon fa yax jaar yëglikaay ba xëy ñëw sampal ñu lu ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb ñëw na ci li nga xam ne nii moom moo di benn combat boo xam ne nii day combat ay police la nar a doon police yi a seq nag nga xam ne moo di ci Sénégal di police waaye di bëre ak ka nga xam ne moo di tàng jër dëkk fa nga xam ne mooy ca Gàmbi mu mel ni ki ñaari mbëree nag wan nañ leen ci aw foto woo xam ne wu fës a fës la kay dox combat ba wala ku ko bëgg du kenn ko jamay américain moom daal mu bëgg a boole police su Sénégal ak polisu Gàmbi di ki nga xam ne moo di tàng jër ak big pato yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb tey andi nañu bilaawu école de lutte ba da jon huit victoire la ñu am six défaites ak benn niil mu mel ni ki nag ka nga xam ne nii daal moo di BMW yëglikaay bi xam nañu day moom mooy révélation bi nga xam ne mooy révélation ba nekk fa nga xam ne mooy ci école de ba da jon wane na boppam bu baax a baax Ahmed Lagros tamit ñëw na daal di confirmer ka nga xam ne tamit moom mooy chef d'orchestre ba di mbay guy gi moom sax itam donte daal gëj naa bëri wala boog bëriwul waaye li ci loo ci mën a dégg moom ay mbiram itam teg na ko fa nga xam ne ni moo di ca aw yoon yëglikaay baa xëy ñëw tey andil ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci école ba tey jom am na fa ñoo xam ne nii moom soo bëggee dégg dégg moom jàppal gëj nañoo bëre wala ñu ko a gis ab avance moo xam sol su buus la booy saar super jamono ñoom daal loo ci mën a dégg ñoom combat gisuñu ko moo tax ba da jon ma nga xam ne nag mooy kilifa ak école ba mu nga xëy tey di wax ca mbir moom nga xam ne nii moo concerné écurie ba wala école de litam ba yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw dugal ñu ci lu mel noonu am na leen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci di bilan ci li nga xam ne mooy wàllum làmb ji àndul ak dóor jàpp na lu toll ci 43 journée daal yëglikaay bi ñëw na tey andil ñu ko ci li nga xam ne nii moom moo di lutte sans bi ak ay journée yoo xam ne yu wër bëree la yoo xam ne bëri nañ ko bu bëggee dégg dëgg millions yi ca dem bëri na quatre-vingt-un millions daal yëglikaay bi loolu la jàpp ak cent six bëf maanaam téeméeri nag ak juróom benn ak benn écran plan yëglikaay bi ne na bu dee ci Adrien Senghor moom jot nañ faa génn ci lu toll ci seize millions trois cent mille francs ak lu toll ci di gaal ga foofa ci ab xaalis fi nga xam ne nii moom moom moo di arène nationale dix millions lañ fa jot a teg ka ko def benn journée la woon muy jax ka nga xam ne fa nga xam ne nii tam moo di Iba Mar a xam ne nii moom moo di Franc mooy mbër mi mujj a nekk vainqueur fa nga xam ne mooy ca Iba balaa ñu fay jógee di seeti feneen leneen loo xam ne nii yëglekaay bi seetlu na ko ci lamb jooju wala ci li simple boobu ren ki nga xam ne moo di yëq yee Diop Yékini moom itam borom faatu production moom itam ñëw ci ay galaa yoo xam ne def na ko muy ñetti galaa yoo xam ne jot toll ci 9 millions maanaam juróom-ñeenti millions rëg-rëg mi nga xam ne tamit seetlu nañ ne moom itam jotut a wàcc ci boobu saison yëglikaay ba xam ne tamit wala bi ñëw na tey ci ñoom ci fi nga xam ne nii moom moo di xëtam bi nga xam ne moom la ñu jagleel tous ba muy diggante tonnerre ak Baye Mandione tonnerre mi nga xam ne daal Baye Mandione la dëkk ay loxo ngir bëgg nag bëre ak moom yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu bu nu continuer dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV kan fay fekk nag moo di Gris 2 di rakki Gris Bordeaux moom nag xëy na ñëw tey ci ay wax yoo xam ne leeral na ko ci mbirum sëriñ soo xam ne jàpp na ne dañoo ne ci dëkk bi di sëriñ sëriñ lu ak di nappaate Gris 2 ne na loolu warta demee noonu ndax it am na loo xam ne dafa yomb lool te jàpp na ne magam jii di Gris Bordeaux moom ébranlé ko wala di ko tuutal ci làmb ne na loolu moom yombul mësee su koo gis te na gis ko dina gàmmo ya lu ca ne Gris 2 wax na ca maanaam daal joxe ca xalaatam buñ fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom fa mu xëy ñëw tey lenn la maanaam arbitre yi nga xam ne daal ba tey seen digganteeg CNG ba wala ñoog docteur Alioune Sarr daal daa mel ni ba tey bàyyeeguñu te mayeeguñ ko fu mu yàkke ak nàkkam daa mel ni keram dimanche bi nu génn ca émission ba amoon ca Walf te Pape Aline Mbaye di ko doxal daa mel ni ñoom daal arbitre ya lañ fa invité woon waaye daal la koy gën di xeex la ñuy réclamer ñu ngi koy gën di réclamer loolu tey ëllil lu mel ni ki noonu mel ni ki yàgg maar loolu moo fi dikkoon tey ci yëglekaay yi. ko Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngay àndoon si revue de bi ñu ànd ak yéen si jàng Babacar maa ngi di la ziar. maa ngi lay fay ndey ma fay la delloo ziar la yàlla nañu defal jàmm quoi. amiin Babacar Babacar teel a tey de.

nag si sunu laam sunu laam na dafa xëy na def benn taxaw seetlu ne Lac de daal ginnaaw nag bi nga xam ne VIP ténor yi ñoom ñëpp am nañu combat Lac de daal moom ba léegi amagul combat maanaam promoteur yi dañ ko zappé nee nañu nag est-ce que du match euh, combat bi nga xam ne moom la bëree ak Boy Niang moom moo tax xëy na promoteur yi sawarnu si ay mbiram neen nag wala boog nekkul daal si plan promoteur yi Babacar waaw man daal li ma gis mooy moom Lac de Guiers numéro 2 moom loo ci mën a dégg maa ngi jégalu moom Lac de Guiers loo ci mën a dégg mooy ah amul combat xëy na mbër bi VIP yëpp parce que ku ci ne am nga engagement wala am nga koo ah, moo ci des xam naa ne yaakaar naa su ma juumule mais loolu nag du tekki que parce que dox ah. mais doxoon nañu ay ñu bëggoon ay combat ak mbër mi wala mbër mi mais yàlla moo dogal taxawul loolu li koy faral di indi mooy ñàkk déggu mais du ma ko jàppee mm, euh, ak Boy Niang moo tax wala nag parce que combat ak Boy Niang la mu fa def yëfi làmb la mm. indi na ay nit tuus na fecc na bëree na est-ce déglu ma la yàlla may na ko ndam ci bar lu nga xam ne nii recours bi mu dugaloon la kon defe naa foofa la mu war a def def na ko fa dafa fekk ne nag kii tëgg wala yow mii ñu tëgg da ngeen di wax ba déggoo su ngeen déggul après day wëri leneen rek mais la dëgg de ci làmb la bokk te itam taxawaayam ci làmb defe naa képp kuy observateur di ko xam làmb di nga xam ne kii ni mu taxawee ci làmb daan ko jafe na te séré na ci li muy def kon yaakaar naa itam te ña mu dëkkal muy waa Guédiawaye bëgg nañ ko te dañ koy supporter kon ci des daal mooy que rek ñaan yàlla mu am combat ko tamit mbëri yëpp Mm-hmm. Babacar suñu jógee nag géejewaay nañuy dem Ndakaaru si kër Kati Diop suñu papa Kati di ko nuyu moom nag nee ñu nag ginnaaw nag bi Yékini mu tekkee ngeen moom est-ce que écurie bi école lutte bi dina amati ku mel ni Yékini nee na koo xam ne mën na ko euh, wutu si wàllum bëre si wàllum tamit lu mu fa def yëpp maanaam toog 15 ans te laal déggul mu ñaan waaw loolu moom nee naa la dina jafe waxoon nañ ko fi waaye dinañ la ko waxaat tey écurie Ndakaar moom pour ñu am un benn poulain bu mel ni Yaxya Jóob Yékini loolu Ndeye Coumba Fall du liggéeyu benn fan du liggéeyu ñaari fan liggéey bu yàgg a yàgg la et ña ko war a doon tamit nekk ay xale ne fa ah yaakaar naa ne pour ñu doon ko la mu jaraloon Yékini est-ce que leen ko jaral foofu la mbir mi nekk parce que mbir mu mën a doon boo ca bëggee doonu sëriñ da nga cay nangoo nekkub taalibe waaye mënoo bëgg a nekk léegi léegi rek sëriñ sans jaar ci taalibe day xaw a jafe te it lamit da xool xale yi léegi da ci am ñoo xam ne dañuy bëgg xëy xëy rek nekk un grand champion yaa ngi dégg te yooyu du demee noonu mbër des fois am na fa ba fa tolloo dangay ngay làqtu liggéey di def ay résultats yu wóor su yàggee rek mën na am nga ñëw foofu mais xëy na ak kati joob ak encadrement bu ñu liggéey xëy na mën nañu amaat yeneen yëkki lay laaj ak nangu mhm. Mhm. suñu jógee nag foofu nañu dem nag si Bado Dione si euh, Bawol Bawol ñoom nag tey euh, suñu laam def na tey seen seen bilan muy écurie Bado Dione nee nañu def nañu am nañu huit victoire six défaites ak benn benn nul maanaam daal mi ngi dire ay tànk waaw maam maam tane na de maanaam boo bëggee dégg de parce que xëy na li ma wax combat yi ñoo loo ci mën a dégg am na ay victoire parce que huit victoire six yi defe naa na ñu mu tane kon dañ leen ci félicité ah euh, am na fa ay xale yoo xam tamit gis nañ leen ñuy wane seen bopp ku mel ni ki nga xam ne moom mooy BMW mhm. ay Ahmed Lagros ñoom ñëpp ay xale lañ yoo xam ne waaw ah, mën nañu yaakaar si ñoom mbay guy tamit nekk na koo xam ne nii Laay Goote am na beneen taxawaay bu mu amaat ak yeneen combat ba amaat na combat kon école la boo xam ne tamit ñu ngi liggéey xëy na am na mbir yu mel ni ay Nokia ay Boy xaw nañ leen gëj a gis mais yaakaar naa rek bu ñu gënee liggéey ñoom itam dinañu gën a mën a seen bopp parce que bi ñu sàncee école beeg léegi yàggul nday kumba suñu jigéen nag foofu nañu dem diggante Gambie ak Sénégal foofu nag euh, xaritu Babacar moo fa nekk muy promoteur ñaari euh, combat boo xam ne moo dox si ñaari policier kenn ki mi ngi nekk policier wu Sénégal mu ngi koy euh, woowee Big Pato keneen ki mi ngi nekk Gambie policier Gambie mu tudd te tàng jër. ñoom daal <laughs> tàng jër moom la big euh, ci jamaïcain bugg dox. boole boole waa jam day da la nga sama xarale sama rakk parce que yàgg maa ngi moom moom yaakaar naa ne. ah nday Kumba Fall diggante Jamaïque ak Babacar yaag ca wootee rajo yi mu koy nuyu di ko ziar waaye loolu mu bëgg daal yàlla na am parce que naa Big Pato ku ne xam na ne police su sénégalais la tàng jër nekk police bu Gambia kon defe naa ne bu ñu leen boolee moom <laughs> dana tarax boobu jooju làmb moom xam naa ko fay dem bu keroogee ah, ah tey xam looy wax itam ndax làmbi police cent pour cent moom dadul wër bu dee police ak civil sax dana tane waaye cent des fois. ñu wax ak yéen dafa gaaw non yooyu ñoom duñ négocier de c'est ay ay anglais la ma ciy profité di nuyu doomu yaay yëpp ñoom xam nga ay Abdoulaye Mbaye sama gars yi ñoom Jibal Touré ñoom. Ah? xam nga kër bu am xaj. ah déet damaa dof <laughs> moom dof yow itam am xel laa yor. jigéen nag jigéen nag si bëreet bi dem nag euh, si bilan wu lutte simple bi tey nag euh, sunu lamb si xalima Ibakan ñëw na nag si bilan bi nee nañ def nañ 43 journée pour 64 gala nee na lutteurs yi ñoom ñëpp soo leen euh, booloo soo leen boolee ñoom ñëpp gañe nañu ñi nga xam ne noo gañee gala yi am nañ 81 millions ak ciba Babacar waaw muy loo xam ne ni daal xaalis bi jot a génn li ma lay wax ci lutte simple bi rek lutte simple bi moom loo ci mën a dégg mu ngi wane boppam bu baax a baax parce que xaalis bi ciy génn bëri na yi bëri te li ma la waxoon rek maanaam nekk na loo xam ne nii bilan bu am solo la te gis nga fa saison a gën a ah ñëw fa di gagné moo gën di xaar benn combat frappe boo xam ne balaa nga ciy jot yàlla xam. waaye tamit bëri simple dafa métti de. ah waaw ñaata combat pour nekk mbër Ndeye Coumba Fall yow mii li ngay def nii war ngaa xalaat ndax daa métti yaa opté pour def ko nit ki li nga opté pour muy sa métier da ngay nangu jafe-jafe ya ak bànneex yi ndax bala ngay jot ci bànneex da ngay jot ci jafe-jafe yi ba pare kon yow mi opté euh, pour nekk lutteur defe naa ne lutte simple day am ñuy teg ay nag ay terrain ay écran plat ay millions defe naa nit waru la fa jiitu war ngay dem di ngemb di bëre mhm. waaw suñ jógee nag euh, si sunu lam lañ dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV foofu nag dañ fa dalal ki nga xam ne mooy Gris 2 moom la euh, moo moo bu yaatu ak Yagg Maar ak ki nga xam ne mooy si Lac Rose moom nag ñëw na si bu lu bëree bëre si euh, kii nga xam ne gisaanekat yi nga xam ne ñoom noo joxoon euh, noo noo waxoon si combat Gris Bordeaux ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye ku si mel ni Kounkandé ñëw na tamit si mbirum Kounkandé ñëw na tamit si combat bi nga xam ne moo dox si moom ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf Babacar. waaw Gris 2 waxtaan ca Lagros ma ci profité di nuyu waa Lagros yëpp rawatina Céline madame Herbert maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Ibou tamit ñoom ñëpp nekk ci hôtel arc muy loo xam ne daal Gris 2 moom jàpp na ne am na ñoo xam ne dañuy sëriñ sëriñ loog yooyu di gara nana sax yow mi boo kon kaala léegi muuru sol ay kii <laughs> mën a ko a ko mën a naa lu ma reere <laughs> am li am solo daal mooy ndey kumba ku ci nekk daal la ngay def war nga xool li ngay def yow sa diggante ak sa borom. bien sûr tamit nit ku ne bu ma nee ndey Kumba Fall man mën naa faj bopp buy metti te fekk na man loxo laa mën a faj <laughs> maa ngi def maa ngi def dégâts maanaam sibiru moom bu ñëwee ci nit. kenn du ko faje ni ñuy faje jabet defe naa kon defe naa ko assumer mm-hmm. xam la ngay def lan la ku ci nekk nag dégg nga wax ja moom la mu wax wax na ko ku nekk nag yaay xool yow noo koy déggee mm-hmm. waaye daal wax na ci lu yaatoo yaatu moom waa euh, loolu voyage yi mu reporté yooyu yëpp ndax coronavirus corona bi waaw nee na corona bee dem mm-hmm. waaw te ah. itam fan yi sax nee na bëggoon nañ ko def mais xam naa protocole moo tax a TV daal kon waaw na gaa yi dem seetaan voilà suñu jógee Leewtoo TV gannaaw nag bu ñu invité Euh, ñoom Sitor ak ñoom euh, euh, Pierre Malick dimanche bi passé si Walfadjri te nag ab nag ñëwaat na nag si émission boobu ñoom nag baal bay nu baal nu dara li nga xam ne moom mooy Alioune yàq nañ ko lu mel ni xamee tontu nañu aussi ki nga xam ne moom mooy Matar Matar Ba ministre ki nga xam ne mooy Babacar nekk aussi bi nekk commission lutte simple moom li ma gis daal nee na tant que Matar Ba mi ngi fi du leen mos a woo waaye dañ ko waxte dee Matar Ba ak Alioune Sarr ay mbokk lañu kon daal Matar Ba di ministre des sports day bàyyi daal Alioune Sarr def lu ko neex noonu ñu ko waxee de bu ñuy amee du du baaxul moom <laughs> waaw noonu ñu ko waxee bu dee noonu la demee du lu gën te du du aw yoon. Mm. waaw dafa fekk ne nag mbir mu mën a doon ci li loo ci mën a dégg mooy la ma wax ci waxoon lay waxaat rek CNC bi jiite làmb ji dañ leen a dénk ñoom arbitre yi di ay arbitre te lu mu doon des sport day am arbitrage ku ci ne am na ci wàll boo ci amee la nga xam ne nii moo leen di boole ci ñàkk bokk gis-gis wares naa mën a toog waxtaane ko ba teg ko ci aw yoon mm. yaa ngi dégg defe naa loolu mooy li nga xam ne moo war a am parce que ñoo bokk Sénégal ñoo bokk réew mi CNC ki ko jiite ak ña ko yore ay sénégalais lañu arbitre yi ay doomu sénégalais lañu ñoom tamit defe naa ku ci nekk nag dafa am loo yëngutu am pàcc boo yore ku ci ne pàcc ba nga yore war nañ la ca jox considération ba mu méngool pour que la ngay def nga mën koo def ci lu normal waaye nag bu fekkente ne loolu ñu wax noonu la amee que ki jiite làmb ji muy docteur Alioune Sarr ki jiite sport bi di Matar ba ay mbokk lañ moo tax Matar da bu lu gën mhm. waaw sama yaay mais soo nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu ki nga xam ne mooy Astane ne DG Brahma chéri Khadija Diallo depuis Parcelles ak Italie nuyu ne mooy Khoudia Seck chéri Asek aussi seen ay seex di leen souhaiter joyeux anniversaire démb la doon fêter seen anniversaire foofu si Italie ña ay seex la ki nga xam ne mooy Khadim Seck ak euh, ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Seck ñoom ñëpp maa ngi leen di anniversaire euh, nuyu aussi Abdou Gueye euh, jàpp jàmm gën papa yi cité aussi depuis États-Unis mooy na jaay ak euh, yi Jumbori Mbodj depuis Mauritanie Babacar. képp ku ñuy bëgg di ñu ziar wala nga ñuy seetaan di ñu bàyyi xel di ñu jox sa xel ak sa xalaat ñu ngi lay ñaanal jàmm di la wax ni mu ngi seen ginnaaw yéen internautes yi di ñu déglu ak di ñu commenter amuñu seen fa yàlla na leen yàlla buur bi fay mais tamit ku nga xam ne dañ ko doon may soxna démb moom yàgg may topp ci li ñuy def muy Mbacke Kebe nekk ca Italie Napoli maa ngi koy ñaanal sëy boobu yàlla na am barke sëy Ndey Kebe waaw non sëy moom ko santaane ab julit da nga war a nga am su war am soxna jigéen am borom kër kon mm-hmm. Mbacke Kebe sa sëy boobu yàlla na ci yàlla def jàmm may la ci njaboot bu barke yàgg sa soxna soosu nga xam ne moom mooy nday kebe nday mbeng di moins di nuyu ñëpp di ñu tamit ku nga xam ne njoogu taal lañ koy wax dëkk ndondol di militaire moom tamit di soutenir bu baax a baax li ñuy def di nuyu doomu ndondol yëpp fu ñu mën a nekk rek parce que man foofu laa jóge commune ndondol village bu ñuy wax ak yaay encore une fois di nuyu képp kuy doomu ndondol